dañuy ñaan képp ki nga xam ne nii gan nga ci chaîne bi wala yaa ngi soog a seetaan suñuy vidéo te abonné nga abonné ci chaîne bi aimé vidéo bi da nga wax ci commentaire sama gars yi aimé bu baax a baax loolu mooy tax YouTube mën a conseillé suñuy vidéo ñi nga xam ne nii abonné guñu ci chaîne bi ñu mën a seetaan suñuy vidéo dem ba abonné ci chaîne bi mu dee yaa ngi doog a seetaan suñu vidéo bul fàtte abonné liker partager parce que ça nous aide vraiment coow li fan yi mooy sac à main. oh xam nga naan a ngay wax ay xam nga yow rek laa doon xaar nag. jógul yow rek laa à main bi soxna njiitu réew mi yor sac à main boo xam ne daanaka ñetti million ci franc CFA lay jar. génn kër ah, génn kër gi daanaka ñetti millions ci franc fa lay jar. ay ñetti millions ci franc CFA lay jar. problème bi mooy ñàkk xam li muy wax. daanaka ñetti millions ci franc CFA lay jar. du ko wax fii fii ku ne am na loo ko wax. daanaka ñetti millions ci franc CFA lay jar. waaye du ma la déglu. daanaka ñetti million ci franc CFA lay jar. waxtu woo ma tontoo da ngay fen. daanaka ñetti million ci franc CFA lay jar. ci fen rek ngay dëkk. daanaka ñetti million ci franc lay jar. àggu fa. daanaka ñetti million ci franc lay jar. munoo wax benn wax mu dem. waaw kenn gëmatu la ñetti million ci franc CFA lay jar. waaw fi mooy première dame gis ngeen rond-point la nekk duñu leen leeral ba xam moo ko jaay wala jaay ko am na bu 15000. am na bu 35000. waaw seen duul yi ngeen di duul naan ay 3 millions ki 2 millions ay fan la saag baa nii. bu ma ko jaay wala jaay ñu ko duñu leen ci leral dara ndax vie privé madame deuxième dame la. danaka ñetti million ci franc CFA lay jaay. Eh, way yo yaay kii ko doon eh, eh, bu rek lay def projet bi dina leen waxone projet bi day lijjanti suñuy mbir da ngeen waxoon ne projet bi dina def aljana Sénégal malheureusement projet bi mu ngi transformer Sénégal jaxal na ci ci ñetti weer yi ana kan mo ci gis ne dundam soppikuna luma yeen ñi nekk ci état bi luma yeen ñi nga xamne ne doon xex dem ne ñi nga xamne dañuy jël alalu rewmi diko yaq ñoñu lañu wara xexal tay war yeen lañu gis ngeen di passer passeré alalu rewmi ku mënul woon am billet d'avion nga gis ko tey jii ñu jël alalu réew mi pasar pasaree ko ba am ñoo xam ne dañ leen di jox nee na ñooy ay billet ngir ñu dem defi umra ci alalu réew mi mais yamul foofu coow li fan yi mooy sac à mais bi soxna si njiitu réew mi yor sac à mais boo xam ne daanaka ñetti million ci franc CFA lay jar ci jamono jooju nit ñi am problème mu ordonnance nit ñi am problème mu faju ba tey ngay dégg centre de santé yoo xam ne amuñu garab ci biir Sénégal

bi boo ngeen xataraayu. lañ naan njumanoo sant mun a wele. dafa désolé waay. sama gars yi vidéo yi ñoo ko seetaanandoo dégg nañ kàddu yi nga xam ne nii kii di Bougane ngay Dany yëkkati na ko te mu doon ay kàddu yi nga xam ne nii dara du ci dëgg lépp ay kàcc la Bougane Gueye Dany dafa doon nit ki nga xam ne nii fan yi dafay génn di def sorti di kàcc ba tooy xepp mu duggaat toogaat lu yàgg génnaat defaatam yeneen kàccam. dem ba doon nit ki nga xam ne nii nag dafa wàccee boppam ndax tey jii nii Bougane Gueye Dany bu doonoon nit ku am tuuti xel war na mën a xalaat ne ah Sénégal kat bépp marque bu génn à l'étranger boo demee biir Petersen wala nga dem Colobane wala nga dem biir ville di nga ko fa fekk kon tey jii nii est-ce que kat soxnay président balaa maa wax ne sac bi 3 millions lay jar est-ce tey jii nii jëndewu ko biir ville est-ce que tey jii nii mayuñu ko ko est-ce que tey jii nii joxuñu ko ko cadeau yow demande yooyu noonu da nga ko waroon laaj. sa bopp avant ngaa génn di wax ndax kilifa nga ndax lan am nga tur bi nga xam ne nii yàlla may na la ko ku ko bëgg ku ko bëggul tamit am na li nga xam ne nii mooy as tur bi nga xam ne nii yàlla may na ko biir Sénégal kon tay jii nii war nga ruus di génn di yëkkati ay kàddu yi nga xam ne nii ay kàddu yi nga xam ne nii dara du ci dëgg ñu lay vaar say moroomu doom toog di la vaar bugaan ngay dani yow xolaatal sa bopp bugaan ngay dani andi say mboqu kàcc yi nga nekkee fan yii nii sos yi nga nekkee fan yii nii yow lan moo la ko jaral ndax réew bi gis nga ne kenn amul fit di génn di opposé wu ki nga xamee ne nii mooy président de la république Bassirou Diomaye fay ak gouvernement am yow nga ne ni yow yaay am fit yaay génn di wax te li ngay génn di wax amul bopp amul génn dara du ci dëgg naan président de la république ñi nga xamee ne nii amuñu woon billet avion sax tey jii nii ñooy nekk di maye ay billet màkk ñooy nekk di jënd ay saagu 3 millions te hôpital yi am na ñu fa nekk mënuñu jënd seeni ordonnance hôpital yi amul ay matériel trois mois Bougane ngay Dany cent jours naka lañu ñu mën a régler problème mu Sénégal gi yëpp te yow nee nga li nga xamee ne nii nguur gi def na ko ci cent jour yi yow da nga bëgg a gëm sa ne doo ko gis ndax lan yow lu négatif rek ngay gis di inventé ay information di inventé ay ay mbir di toog di wax te li ngay wax yow kenn du la déglu li ngay wax dara du ci dëgg xoolaatal sa bopp bu baax nag comme gars yi ni ñu booy boycotté sa télévision bi nga xam ne ni mooy seen TV ndax yéen këru dof yi ay waxi dof rek ngeen di wax mais yow nag yaa ngi confirmé ne tur gi nga xam ne nii sénégalais yi ñenn ci sénégalais yi tuddee nañ ko sa émission boobu noonu kër dof yi yow yaa ngi wane na yow yow yaay bàyyi dofi yow yaay njiitu dofi yow yaa moom kër gi nga xam ne nii foofu la émission bi di daw muy këru dof yi yow yaa moom kër googu noonu ndax sa waxi dof yi nga nekk di wax sa waxi nit ku amul xalaat yow ndax tey jii ni man jàpp naa ne doo toog di xalaat ndax boo doonoon nit ki ki nga xam ne nii dafay toog di xalaat ruus nga war a génn. di kàcc kàcc yu meli nan sag bi 3 millions lay jar taxamo saag bi soxna ci fan la ko bu gan ngay dani xoolaata sa bu gan ngay dani yoonu politique bi nga jël ni du yoon bu baax yoonu politique bi nga jël ni xama fan la lay yobbu comme ni faté fàttee Barthélémy Dias comme ni faté ñeneen ñi nga xam ni di katchal ngoot gi nga xam ni mo fi nekk tay di katchal ki nga xam ni moy premier ministre Ousmane Sonko ñoñu non ñepp faté nañ leen. tey jii nii nag boo moytuwul sa bopp yoonu opposition bi nga xam ne nii moom nga jël yoon bi nga xam ne nii moom nga jël bëgg a opposé nguur gi boo ko wàccul nga xoolaat sa bopp dem wuti ji ay argument yu leex nga ñëw andi ko fii wax sénégalais mën la dégg tey jii nii bu boobaa dañ lay fàtte rek sama gars yi vidéo bi tey loolu la woon Bougane Gueye Dany xoolaatal sa bopp Bougane Gueye Dany demal nga toogi ji nga dem gérer ji say entreprise loolu laa lay diggal politique bi nga bëgg a def yow xamoo yoonu politique yow mënoo politique sama gars vidéo bi tey loolu la woon di leen jox dig dajee ci beneen yoon ci beneen vidéo a ngeen jëf. bu dee yaa ngi doog a seetaan suñu vidéo bul fàtte abonné liker partager parce que ça nous aide vraiment.